qul yaa ayyuhal kaafiruun benn yoon lexlaas di xul huwallaahu ahad benn yoon fukki rakaan nag juróomi sëlmal lay nekk ñaari rakaan yoo julli daal di sëlmal ñu dikkal leen ci waxtu yi nga xam ne ci la ñuy jàpp koor gi di 5 heures 19 maanaam juróomi waxtu ci fajar bu taftalee fukki simili ak juróom-ñeent bu dee waxtu yi dog yi 19 heures 26 maanaam juróom-ñaari waxtu si ngoon bu taftalee ñaar fukki simili ak juróom-benn ñu ngi leen di jox dig daje ba suba incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi